nag réccu na ko firangi rek moo tax mu daal di koy def waaye nag bu démb doon tey du ko dolleeti nee na nag kenn koo xam ne jamono ji ma ngi ak moom ay mbokkam yëpp ko bàyyi moom Aïda Mbacke ni ki démb la koo xam ne nee na nelawutul sax guddi yéen kay gi di wal fajëre nee na Aïda Mbacke moomee soo mooy tuule nag lu toll ci fukki at ak juróom ci ati kaso danañu ko ko tëj yéen kay gi di la sa bàyyi mbir moomee ñu koy fekk fa njiitu réew di président Macky Sall muy wax ci élection locale yi nga xam ne moom lañu ñu dëg ma la moom Macky nee na violence politique bi loolee maanaam war nañu ko mën a dakkal mën nañoo def ay élection yoo xam ne ànd ak dal lay doon yéen kay gi di Sud Quotidien xëy wax ci élection locale yi dina am nag ci anam boo xam ne bu méttee métti lay doon ndax war gi nga xam ne moo ci am bëri na loola maanaam trahison bi ñi nga xamante ni ñoo frustré maanaam bëri nañu ak liste parallèle yi nga xamante ni tamit nemmeeku nañ ko ci yéen kay gi di Les Échos nee soo am war di ni day dem ci élection locale yi liste bunt bi lay demee yéen kay gi di Libération nee na Pape daan nay déposé listam ci diwaanu mooy nekk tête gis-gis ci diwaanu Ndakaaru yéen kay gi di Rewmi Quotidien locale yi Assane Sambo nee na bu ñu waxantee dëgg mooy campagne électorale bi jamono ji nag démarré na waaye nag Ousmane Sonko ma ngi nag joué li nga xam ne moo avenir politique ba ko fa gagné du baax waaye tamit Khalifa Sall ma ngi waajal bu baax a ko teggee woon ci bopp Ndakaaru neexu ko gi di réew mi quotidien wax na nag ci déception bi nga xam ne yeewi askan wi am nañu ko ca diwaanu Matam ndax Jibril Ngom mi nga xam ne moo nekkoon coordonnateur ba dafa déposé ay faux document ba pare ne mes ne menteñ te nag soo moytuwulee yeewi askan wi daal du mën a dem ci élection yi ñu dëg ma la ca diwaanu Matam yéen a kaay gii di las Jibril Ngom mi nga xamante ni moo nekkoon coordonnateur bu yeewi ca diwaanu Matam maanaam nag ginnaaw bi mu déposé daal ay faux document ba pare dafa dem nag rejoindre benn bokk yaakaar yéen a kaay gii di xëy nag sampab laaj nee na Macky ndax nekkul parrain ñi nga xam ne ñooy rebelle yi maanaam ñi mer ba maara day tali teg ay liste parallèle est-ce que bokk yaakaar sa diwaanu Ziguinchor yéen kaay gi di Sud Quotidien nee na Angélique Manga dem na fekk ki nga xam ne mooy Abdoulaye Baldé yéen kaay gi di Libération bàyyi mbir moom wax ci Ousmane Sonko mi nga xam ne moo doon sàkko ci procureur ci parquet ngir nag ñu daal di koy jox li nga xam ne mooy a passeport am ba pare teggi contrôle bi nga xam ne teg nañu ko ci ak noddama journal bi nee na parquet bi nee ma procureur dafa lànk ba tëdd sa naaj wa lànk naa jox Ousmane Sonko passeport am ba pare tamit li nga xam ne mooy contrôle judiciaire bi yéen a kaay na maanaam mujj gi wala baat bu mujj bi maanaam daal juge deuxième cabinet bi moo ko yore yéen a gi di Sud Quotidien ak Le Soleil nee na lauréat prix Goncourt 2021 Mohamed Mbougar moo ko jël fierté la ngir Afrique yëpp yéen a kaay gi di Vox Populi xëy ci Barça wala Barsàq gi am na ak gaal goo xam ne yeboon na lu toll ci juróom-ñett fukk ak ñaar ñu bëggoon a dem Espagne ñooñu nag marine nationale moo loxo ci waaxu Saint-Louis yéen a gi di Stades xëy xaw naa ralenti ci match